والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دلو سيتنا نيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دي نيان يالا يالنا يالا àggale ko ci xol yi nga xam ne ci la jëm weesu nañu kon ñetti saar nekk ak yéen tey ci suñu ñeenteelu saar muy soratu nisaa di saar boo xam ne mooy soratu jigéen mu ngi bokk ci saar yi nga xam ne madina la ñu wàcc nekk téeméeri saar wala téeméeri aaya ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci saar yu gudd yi la bokk aayam yépp mu ngi wàcc madina nee nañu ba mu des benn aaya mooy aaya bi nga xam ne mooy juróom fukkeelu aaya ak juróom-ñett ci biir saar wi inna allaha ya'muru saar bi mi ngi wàcc ginaaw bi nga xamee ne suratul mumtahanna wàcc na di saar bu guddi ni ma ko waxee léegi fees dell ak ay attey sharia saar la boo xam ne dafay nose li nga xam ne mooy mbir yi na ci jullit yu muy aajowoo ci biir nekkam ak yi muy aajowoo ci biti naka noonu saar bi dafay jublu ci leeral wàllu sharia ñi nga xam ne mooy saari almadina saar bi waxtaane na ay mbir yu am solo yoo xam ne dafa wékku ci ki ñuy tuddee jigéen yii wékku ci li ñuy tuddee kër yii wékku ci li ñuy tuddee njaboot muy famille yii wékku ci li ñuy tuddee réew yii wékk ci lu ñuy tuddee al mujtama waaye li ëpp ci li saar bi waxtaane gën cee am solo gën cee feeñ mooy waxtaan gi muy waxtaane ci jigéen ñi ñu tuddee ko soratu jigéen am na beneen saar ba xaw mel ni moom ca suuf ñu ko tuddee soratu talaaq saaru passé saar nag fi alquran ñaari yoon rek lay nekk benn mu wàcc makka mbaa mu wàcc madina bi wàcc madina wàllu sharia rek la yittewoo ba wàcc makka wàllu pas-pas ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere mooy pas-pasam dafa leer saar bi bu mu jógee dafa daal tàmbalee ci waxtaane ci àqi jigéen waxtaan ci àqu koo xam ne amul li way jur maanaam kook way juróom bu góor dafa faatu ñu koy tuddee jirim rawatina nag jirim yu jigéen yi yi nga xam ne ñi ngi ci seen këri way jur yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane mu daldi saxal seeni àq ñoom jigéen ñooñee ci miiras saxal seeni àq ci suñu liggéeyee saxal seeni àq ci wàllu dencante te mooy takk ñu takk leen naka noonu mu xettali jigéen ci fi ko ceddo gi tegoon fi ko jaahiliya tegoon muy ñàkk xam gu ñàkkoon a xam kan mooy jigéen ba tax daan fab ay xomb di tëj ci gémmiñam di ko def fa ñuy def xar ya te it soo gisee koo xam ne ku rëy la nga ñëw ne ko dama lay booleeg sama soxna ndax dama bëgg jiw alxuraan ñëw jëli leen foofee indi leen foo xam ne fu dul alxuraan doo lislaam doo leen indi foofu ndax doo leen xamee noonu saar bi indi kon te mu jigéen ñoŋal teraangaam garde ko ak njigéeneem woo jigéen indi ko ci yemale ko ci ay àq jox ko li nga xam ne moom la àqoo ci buñ koy takk muy almuhru li muy am ci miraas waaye it santaane góor ñi nañu denc jigéen ñi dencin wu rafet naka noonu saar bi teqale na bu leer wàllu miraas ci teqalin woo xam ne wu sew la wu maandu ndax tabaaraka wa taala ku dul moom xame woon nim xame mbir yi amul sax ku ñuy dendaleeg moom naan ko lii la xam yow nga xam lii waxtaane na moom saar wi jigéen ñi nga xam ne su takk jotee dañoo araam nga takk leen ci wàllu nasab muy askan ci wàllu nàmp ci wàllu gorole yooyu yépp saar bi waxtaane na ko naka noonu bi saar bi jël na nose li ñuy tudde lënkaloo gu dox ci diggante ñaari way dencante muy jëkkër ak jabar mu leeral bu baax ne na xam ne góor du takk jabar ngir aw yaramam dong waaye takk soxna ki koy def ak nite moo tax nit di takk soxna wan góor ne ko li ngay jox jigéen ci wàllu ak can muy tudd may gu njëkk du ab njëkk kenn jaayu la soxna si danga koy joxe kay mu nekk loo xam ne danga koy dëgërale sa mahabba sa cofeel di ko saxale seenu nekk waaye di ko taqalee seeni xol saar bi waxtaane na ba mu ca jógee àqu jëkkër ci jabaram aqu jabar ci jëkkëram naka noonu tegal nañu ay jéego yoo xam ne bu nu ca jaaree dinañu mën a defar alxayaatu azawjiya muy saa boo xamee ne shiqaax tàmbali na am ak xilaaf bayna zawjayni wuute ak réeroo ci diggante jëkkër ak jabar leeral na moom saar wi lan mooy xawaamatu rajul li ñuy tudde naan góor mooy ndëgër laayu jigéen mu wone fi it ne xawaama googu du xawaam dangay jàppe ndaw si jaam déedéet waaye daf koo def rek muy xawaamoo goo xam ne xawaamatu nus in wa tadib muy xawaama laaxi ko biir ak xawaama jubbanti ak sàmm bi ci saar bi toxoo incha dina ñëw ci wàllu famille waxtaane société muy almujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun dafay war a rafetal ci mépp mbir mu mën a nekk bu ku nekk bayee fa nga nekk rekk pénc mi set mu waxtaane yërëmante gi war a dox suñu diggante laaxente biir gi maandu gi ak wóor gi su ko defee société bi dëgër këng su fekkee jigéen joo taseel mu nangoo nekk jigéen góor goo taseel mu nangoo nekk góor doom joo taseel mu nangoo nekk doom kenn ku nekk nekk fañ la teg su boobaa nee na société bi dina dëgër bi mu jógee nag ci al islaahu daaxili dafa daldi tuxu nag ci mbir moo xam ne mbirum bitil loo xam ne dafay waral nit ñi am kóolute goo xam ne kóoluteg sax la dal mu digal leen ci bépp boo xamee ne seeni noon mi ngi tàmbalee jëm si ci ñoom ñu waajal ko te bàyyi ko xel bi ci jógee moom saar bi dafa daal di tëral ni nga xam ne mooy jëflante diggante réewu jullit ak bu dul jullit ak yeneen réew ya daal di ciy indi mbirum kër-këri bi ñu tudde jihaad contre naafiq yi wane ne naafiq moom ab feebar la boo xam ne day wallaate te mën naa yàqub société mu jóge ca daal indi li nga xam ne mooy mbirum yonent yàlla isa alayhi salaam ci li nga xam ne moo ci li ci xew nekk xar-xar boo xam ne bu wóor la bopp moo ko ciy wax wala taqulu thalaathatun intahu xayran lakum innama allahu ilahum wahid saar bi nag jigéen lañ ko tuddee ndax li nga xam ne moo ci nekk ci ay atte yu jëm ci jigéen muy suratu nisa al am beneen suratu nisa as nga xam ne moom lañu xam ci biir alquran muy suratu talaq su bëggee boole nag saar bi ma génn muy suratu ali imran ak saar bi ma nekk moo di bi ali imran di jeex yàlla def ne yaa ayuha alladina amanu isbiru wa saabiru wa raabitu wattaqu baatu wattaqu saar bii jóg daat ne yaa ayuha naasu ittaqu rabbakum moo di kon fa saar bee taxawee fi la saar bii déparé léeg-léeg ngay seetaan ci rajo boobu ñuy tuddee télé nit ñi di def fa moo xam ne dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbaab drapeau soo dawee ba ci sa moroom jox ko ko moom tam bu dawee ba ca moromam jox ko ko saari alquran yi noonu lañuy def def fépp fu wenn ak ki foofu la sa moroom di jóge moo tax bii alfaatixa ñëwee tëral ni mu tëddee aqida sharia mujtama mujtama baqara ñëw wax ca lam ca wax wax ca sharia lam ca wax wax ca aqida lam ca wax bi Ali Imran ñëwee wax loolu dañu daal dégg ne waaw famille bii di Alu Imran famille Imran waaw ñoom lu ñu amee lii ñu am ak nu ñu baaxee nii yàlla ne seenu jigéen a baax seenu jigéen a baax société bu baax bu nekk rek seenu jigéen a baax looloo tax yàlla bi mu noppee ci kon Fatiha noppi ci Baqara noppi ci famille Imran mu ne nag léegi kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baaxee rek société bi baax ne mbokk yi kon saar bi jigéen ñépp war nañoo bay li ñuy def teg seeni loxo ne teg bàyyi waxtaan wi bay luñ jàppoon déglu ko moom saar bii ba mu jeex ndax saar la woo xam ne alxuraan la waaye day yitte woon mbirum jigéen ñi lool yal na yàlla jàppale ñu ba loola am bismillahi rahmaani rahim sama borom nee na yaa ayuha nnaasu yéen nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen boroom ragal leen seen boroom yi seen boroom bi nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen ñépp min nafsin waaxida ci benn bakkan yéen ñépp seen boroom mi ngi leen bind ci benn bakkan amu ci ku gën sa moroom maam ndax yéen a bokk menn maam muy nafsa waaxida benn bakkan wa xalaqa bind min haa ca bakkan boobee zawjaha tóllanteem tóllanteem moom la olof di wax jabar wa bassa mu génne min haa wala min huma ca ñaari bakkan ya rijaalan aw góor kafiiran góor yu bari wa nisaa aku jigéen aku jigéen naasu muy baatu naasu soo ñëwee ci alxuraan ñëw na ci ñaari téeméer yoon ak ñin fukk boo ko defee boo jëlee yaayoon na ci boppam ñëw na fukki yoon ak juróom-ñett ci biir saar bi dikk na ci ñetti yoon ni mu dikkee ca bàqara ñaari yoon waaye ci al ijaasul quraan yi kéemtaan gu alxuraan kéemtaane ak tolloo gu mu tolloo soo jëlee baatu rijaalan muy aw góor wa nisaan aku jigéen nisaa ci alquran soo dee seet baat bi ñëw na ci juróom-ñaar juróom fukki yoon ak juróom-ñaar nga jël baatu rijaal góor ñëw na juróom fukki yoon ak juróom-ñaar ñu tolloo képp ñoom ñaar boo leen boole mu jox la saari alquran di yàlla rek a yàlla. keneen ku dul moom boo waxee wax ja mën naa ñàkk tëddi nii nga xam ne nii la sama borom tax la tëralee téeram bi. yàlla ne wattaqullaha ragal leen yàlla allazi yàlla mi nga xam ne tasaaluuna bihi ci ngeen di laajante wal arxaama ragal leenu mbokk ragal leen dagg ak mbokk inna allaha yàlla day kaana raqiban aleykum ku leen fuglu la ku leen fuglu la sar bi fi mu ubbee demagul fenn wax ñaari yoon taqwa moo tax boo demee ci benn mu fassir bu ñuy wax sayid xawaa day wax ne suratu nisa suratu taqwa mën na ko tudd ndax yaa yoon na ittaqu rabbakum jéexalagul aaya gi ne wattaqullaha muy al rububiya ak al uluhiya aay yi ma nekk boo demee ci jàkk bu ñu dee mayee jigéen bu kiy ñaan ñaanee kiy maye maye dafa am ku ñuy wax xutbaal baat yii lay jàng waaye nag duñu ko firi duñu ko firi te it kiy ñaan jabar du fekke wax ji ki ñuy maye du fekke wax ji seeni seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal te nekkoo fa nag buñ la nettalee mën na laa jural lu bokkut ak lañ la waxal dañoo waroon ñu dee mayee kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax ki ñuy may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko dégg li leen yàllay wax yàlla def na yaayoon naa su yéen nit ñi teg ca ragal leen seen borom ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor yàlla ne yow ku góor ki ragalal yàlla ku ragalul yàlla doo ci jabar lu mat ñetti weer yow ko jigéen kii ragalal yàlla ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci sëyam ñetti weer yow ilimaan ji bëgg may ragalal yàlla laajal ba xam ndax kii mas naa sëy ndax mi ngi ci buum ndax mi ngi tënj ndax ndax yooye yëpp nga laaj ko ba mu leer nga door a jàpp dat boo koy mayee ragal leen yàlla yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la ndax ki ñuy maye mas naa sëy ndax musta sëy ndax mi cig buum ndax ndaw su ne ci buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye dugg nga ci loo xamut ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ku islaam d'accord ñu may ko ko nga fekke ko dugg nga kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaayoon su naasu ittaqu rabbakum ragal leen seen borom mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede kon aay ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min nafsi waaxida ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si tey ñaar yooyu yëpp amut benn bu ci am kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy maye ni nga xamee ne na lañuy ñuy fay leerale ya ca des yàlla daal di ñëw ci ñaareelu àtte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu àttee yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sotarak da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc barab sàngam loolu nga ko wax terasel ko ko su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg a def neneen wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle su boobaa moom du dem fa mu jëm ñàkk gaa dem nag loolu mooy mooy dafa amul taqwa maanaam ci misaal nit ko am waa mooy ba alxuraan ne def leen day def su ne bàyyi leen day bàyyi moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa su ñu nee waaw mu ne kon nag ma indi atte tey su ñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw moo tax alxuraan ca ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim malik yawmi diin door ne iyyaka na'budu kon nag yàlla ñu ñëpp nañu nangoo am taqwa su teree ñu bàyyi su ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle yàlla nee na wa aatul yataama jox leen jirim yi amwaalahum seeni alal maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen ngeen jox leen seen alal jaleen seen baay bàyyiloon wala tatabaddalu bu leen weccee alxabiisa alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax bu fekkee daa amoon alal ju baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya yàlla ne bu leen ko def de bu leen ko def wala taakulu bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi ilaa amwaalikum ci biir seeni alal yéen ñi ñiñ dénk jirim yi kuñ ci dénkub jirim jox la alalam yàlla nee na bul ko booleek sa alal lekk innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira bakkaar bu rëy yàlla nee na lekk alalu jirim bakkaar bu rëy la moo tax képp kuñ ci jox ab jirim nanga ko sàmmal alalam ba mu màgg nga wut ay seede te jox ko mu ñëw ci beneen atte muy taaddudu zawjaat maanaam soxna yu bari yàlla nee na wa in xiftum su ngeen ragalee allaa tuqsitu ci ngeen bañ a maandu fil yataama ci jirim yu jigéen yi nga xam ne yéen a ngi leen jox ci yor ci seen kër ngeen ragal bu ngeen leen takkee kenn ga bañ a mat ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal papaam nekku fi mu màgg sa xel nekk ci denc ko ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu may gu njëkk mu ñàkk a mat yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa bu leen leen jéem a takk ñu ñuy def mu ne fankixu takk leen maa taaba lakum la teey ca yéen minan nisaa ci jigéen ñi fankixu takk leen maa taaba lakum minan nisaa ci jigéen ñi takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk góor day teel a takk soxna jigéen day teel a sëy jigéen saa bu amee juróom benni at jëm juróom ñaar jëm juróom ñett mat naa maye góor gu am fukki at ak juróom war naa takk soxna na ngeen teel a takk maa taaba lakum min nisa ñaata mu ne masna kum neex takkal ñaar wa thulaatha kum neex nga dem ba ñett wa rubaa kum neex nga dem ba ñeent yàlla mu ngi lim kon mbirum ay soxna moo di fii islaam waxut ne takk ñeenti jabar faratala waaye nee na moom a gënal waxul ne faratala kenn ku ne war na koo def waaye nee na moom de moo ko gënal góor day bari ay soxna ndax nee na moo ko gënal te it bi muy lim ci ñaar la tàmbalee teg ca ñett teg ca ñeent su tàmbalee woon ci benn bukkut ak bi mu tàmbalee ci ñaar teg ñett teg ca ñeent kon li tax nag mu waxe nii moo di àdduna si jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi te góor ñee gën a bari lu ñuy dee tabaski gii weesu li ngeen rendi ci xari tabaski yu góor moo ëpp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigéen sunu sa xarum tabaski sax day mu góor mu jigéen kon bu koo rendi meneen keneen nit am xaram meneen mu góor dala koy wecciku yëkkati jigéen ga yar nga rendi góor ga loolu logique gu àdduna la àdduna nun la tëdde mooy góor moo ëpp lu muy dee jigéen moo gën a bari kon nag bu fekkee ne góor gu nekk danga ngaa jël benn soxna képp ci soxna yi li des ci mbedd mi mooy ëpp fuuf kenn xam nu mu toll ñooña nag duñ mo duñ am bànneexu sëy duñ am bànneexu nekk ndey duñ am bànneexu am kër duñ am bànneexu fanaan fenn te nag seetaan leen ñu dee ci ak njànq takk leen te fexeloo leen yore moo gën wàññi li nga xam ne moom nga tëral ci wàllu sa système dund ci sa kër bañ ñeneen xaj ci yonente baa ngi wax ne sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkumul baa baa moo di saa boo demee ci mbedd mi ba gis jigéen goo xam ne nangu na saa boo xëyee jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loola moo gën nga ñàkk koo am ba koy wuti feneen di ko fu jéem a toppatoo kon fankixu denc leen maa taaba lakum min annisaayi ci jigéen ñi waaw yàlla bu ne woon denc leen soxna rek kay dafa mel ni bu tuddul jigéen it góor buy takk xanaa jigéen lay takk waaye yàlla xamoon na ne daañ dem ba mu jàgg ñu naan ndax góor mën naa takk góor loolu la yàlla xamoon moo tax mu indi fi baatu mi ne nisaa yi ci jigéen ñi ngeen takk ñaar wala ñett walla ñeent fa in xiftum su ngeen ragalee allaa taajulu ci ngeen bañ a maandu fa waaxidatan yem leen ci benn maanaam soo amee ñaari soxna soo leen yéemalewut bu yomal xiyaamee genn wàll ngay dekkiwaale sa genn wàll gi day paralysé soo ragalee nag ne man kat su ma yoree ñaar duma ma maandu parce que dëgëruma dëgëruma àttan naa jeng yàlla ne yemal ci benn parce que yem ci benn su boobaa mooy gën ci yow maandu gi da cee war a am ku takk ñaari soxna danga leen di yemale képp yemale ga nag mooy yemale li nga xam ne mooy sooy joxe nan yemle ku soxla dàll nga jëndal ko wi ko jot ku soxla yére nga jëndal ko li ko jot waaye yemale gi du caagi ne kii ku gudd la kii ku gàtt nga jëndal kii 15 mètres kii ne moom it foog nga jëndal ko 15 mètres léegi de su boobaa dàll yee moo leen di atte yàlla kon nee na su ngeen ragalee maandu na ngeen yem ci benn dina ko wax ci ca kanam incha allah moo di maandu xol nag moom mënu leen ko maandu xol. mënu leen ko amaa maanduk cër kooku moom man ngeen ko te mooy li ngay ni ngay jëfe fa waaxida su ko defee boo leen takkee ragal la maandu it moo di ak ay dangay am ñaari soxna di dem ci kii ak ay dem ci kii ak ay soo leen yemalewut bu yemal xiyaamee du baax kon noonu ngay jéem a yemalee ñoom ñëpp su fekkee ne nag mënoo am ci jigéen ñi ah aw wala boog maa malakat ay maanukum li nga xam ne moom la seen loxo ndeyjoor moom te mooy ñi nga xam ne mooy jaam yi zalika loolu adna alla taulu loolu moo gën a jege ci ngeen bañ a jëng bu ngeen munta maandu takk leen benn soxna bu ngeen amul lu ngeen takkee soxna te am ay jaam yem leen ci seeni jaam loola moo gën a jege alla taulu ci ngeen bañ a jéng ndax jëng baaxul ci góor gu yor ay soxna su ko defee kon takk soxna mbir la moo xam ne islaam def koo tëral ci diggante góor ak jigéen sunna tëral ko ndax ñu mën cee amee ñeenti mbir benn bi mooy ci takkante ci la fi doomu aadama di mën a dese jiwam di fi nekk ba faw ñaareel bi mooy doomu aadama bu góor day soxla doomu aadama bu jigéen ñi bëgg tëral loo xam ne da koy dagan ñetteel bi mooy danañ mën a jàppalante ci wàllu yar bi ku jigéen ki féete fii ku góor ki féete fii ñeenteel bi dinañ ci mën a nosewoo diggante yi nga xam ne moo am ci euh, diggante ñaar ñi nga xam ne ñooy way dencante wàllu jaam nag dafa doon loo xam ne lii suñu borom tabaaraka wa taala bi muy indi lislaam dafa fekkoon mu amoon fi moo di yàgg na lool mbirum jaam ca misra ca siin ca Inde ca al Yunaan foofi mën di dem dangay fekk ba ca ruum ak ruumaan da fekk ak njaam amoon na fa xam ngeen ne Haajara ab jànq la woon boo xam ne buuru Misra moo ko mayoon Saarata Saarata may ko Ibrahim mu am cay doom walla mu am ceeb doom loolu lépp tabarkalla ca jamono yàgg la woon kon ak njaam yàggoon na li ko daan sos nag mooy wàllu xare wala ak ñàkk walla fëkk xare am ñu reyante jël jigéen ña wala góor ña jàppaleen ñu ay jaam walla nit ñàkk jaay doom wala boog nit ñëw jaay aw nit doole fëkk seeni mbokk yóbbu leen def leen ay jaam islaam nag bi mu ñëwee fekk fii yépp nanguwu ci benn lu bi nga xam ne mooy wàllu bii am ci xeex moo tax bi mu ñëwee moom islaam daal di ne nañu daal di jóg tëral yoo xam ne mooy goreel lii nga xam ne moo di jaam yi ba ñu jóg ci mu noonu moo tax ba kuréy nit mu ne goreelal jaam koo xam ne ki def nga ziar ne soxna yaag sama yaay laa yemale mu ne goreelal jaam ku giñ mu ne goreelal jaam ku dog ci weeru koor te tey ko mu ne goreelal jaam ku joteeg soxnaam mu ne goreelal jaam jaam bi itam nag su bëggee bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bind pour mu jotu incha allahu dinañ ci indi yeneen waxtaan yu gën a yaatu ci wàllu googu mu ne kon bu ngeen munta takk ñeent ndax mënu leen a maandu na ngeen yem ci benn wala li nga xam ne moom la seen ndeyjoor moom te moo dib jaam loolu mooy li gën a jege ci maandu yàlla nee na wa aatu nisaa jox leen jigéen ñi saduqaatihinna seeni may seeni can nixlatan mu di may gu teey mu di may gu dagan ci ñoom mooy li ngay njëkk a may jigéen loolu nag amul fu ko islaam wax ne lii kenn ku nekk bala ngaa dem na ko mat waaye ulama yi indi woon nañ ne na mat rubu dinaar nga xam ne soo ko seetoon tey dina mat 4500 wala lu ko jege tuuti waaye loolu tam jigéen ju nekk yaa ko moom góor war la koo jox pour daganal sa diggante ak moom ba nga nekk soxnaam yeneen ya ca des nag ci wàllu fokk nga jënd rajo ci wàllu fokk nga jënd nangam nangam nangam yooyee alxuraan tudd ko fenn charte bu ca diis bu nekk kum neex nga teg ci suuf waaye ku attan nag soo jëlee ba tey lislaam du ci wax dara fa in tibna lakum suñu teeyee ñoom jigéen ñi mayaat leen an shay'in ci dara minhu ca may ga nafsan bakkan maanaam seen bakkan teey na ca may ga nga yëkkati 4500 may jigéen mu yëkkati 3000 ya mayaat la yàlla ne fa fakuluhu lekk leen ko hanii an maria lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen